وسلم إلاني هنا كثير مسيري مع الأخيار لله بالنبي الجذب الذي خالني لا كريم عليهم حيث أسير على من به قد جاء أنا منه منزرا صلاة تقيني سوء حيث أسير على من به قد جاء صلاة تقيني السوء حيث أسير ربي بما يزرع الأزهار خلف جار بجار

Sagre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 Euh, sof sunu kàddu ci li nga xamee ne noonu la ñu ko fi jiitu defe ci soññee ci li nga xamee ne moo jëm ci bis bi nga xamee ne moo nekk ci sunu kanam di sunu bis ñun taalibe yi seexul xadim yi muy màggalu Tuuba di ci soññee ak di ci woote bu woote bu baax di jëmale sunu soññe ak sunu woote ci ñi nga xamee ne ñoom lañu bokkal waar ci yoon wi ñu bokk lu ñuy jëngatu muy ci xasida yi euh, di wax ne nañu góor góorlu bu baax a baax a baax ci wàccaay bi ak ci lépp loo xamee ne luy tax bis bi ni nga xamee ne noonu lañ ko daan amee ñu amee ko noo xamee ne dana euh, romb fa daan nekk te loolu comme niñ ko soññee li ci jiitu mooy euh, waajtaay ci wàllu addiya yi ndax war nañoo góor góorgóorlu ba euh, fexe ba kenn duñu man ci addiya yi niñ koy laaje ni nga xamee ne noonu la góor góorgóorloo ci xasida yi nañu góor góorloo noonu bu baax a baax a baax ba kenn duñu man ci addiya yi kenn ku ne jéem a euh, góor lu baax ci sas yi ba lépp ñu matale ko incha allah ndax niñ ko waxee rek li ñu bëgg ci bis bi lépp lu ci ëpp euh, bu addi yi matul na mu war a matee xëy na nañ ko bëggee mën nañ ko bañ amee noonu moo tax sunu soñ dañ koy dañ koy jiital bu baax ci soññee ci addi yi ñi nga xamee ne ñoom laa bokkal nekk di yëngu ci xasida yi ñu ngi leen di soññ bu baax ndax ñooñ ñoo ñi nga xamee ne sañ naa leen a soññ ndax ñooñ la yàlla def euh, ma ñu ne ma yéen a nekk yaa nekk ci seen kanam kon ñooñu laa sañ a soññ kon ñooñu laay soññ bu baax a baax a baax ak fépp fu ñu mën di nekk te di ci dëkk bi di dégg sama kàddu rek maa ngi leen soññ bu baax a baax ñu gën a lu baax ci saf yi beneen ba ca toll mooy beneen ba ca topp jàpp ci liggéey bi ndax ginnaaw bu saf yi matee tamit euh, ku ne xam na ne bis bi laaj na jëf bu baax a baax ci sunu kàttan ci comme ni nga xamee ne loolu mooy lu jëm ci waañ wi ak préparation salle yooyu yëpp yooyu yëpp tamit ñu war cee wanewaat bu baax a baax a baax gën cee góorgóorlu baax a baax kenn ku ci nekk waajal ko ci ci fànn yëpp bu ko defee lépp luñ ci bëgg rek incha allah ñu am ci lu ko kon euh, loolu rek lañ ñëwoon nañ ko yëkkati ndax euh, mënewuñ wax ji waaye comme ndigal la ñu ne nañ ko jëfe rek ngir euh, jëfe ndigal moom day doon loo xam ne farata la ci taalibi moo tax loolu waaye bu doon yi moom na xëy na du ko jaar ndax suñu mënewuñ wax lu bëree moo ñu ngi tuubaat bu baax a baax a baax lépp lu ci di euh, yàlla la neex mu jubal ko lépp lu ci dem ñu ngi koy tuub bu baax a baax yoo xam ne sunu màtt di la ak sunu ñëw xamal wax waato daawaane am alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah عبد القدير